boo gisee ñëpp naan Amadou Ba. Euh, mbooloo mi aussi maa ngi leen di nuyu di leen dalal di dalal euh, sama waa kër su ma waxee sama waa kër mooy waa parcelle unité 4. maa ngi leen di jox seen wàccuwaay di leen euh, masawu coono ci ci teewaay bi gis nañ fi teewaayu imam Ciss gis nañ fi suñu papa suñu kilifa doyen Niang su ma limee damay juum di nuyu délégation bi nga xamante ne si jóge na Thiès Aïssatou Omar Sow ak délégation ñu ngi koy nuyu di ko jox euh, wàccuwaayam di nuyu suñu jigéen suñu sœur soxna Abi fay mobilisation bi mu def macha allah am na solo soxna Abi ñu ngi lay nuyu di la euh, jox sa wàccuwaay donc euh, sama kàddu maa ngi koy jël ci turu suñu présidente Leila Ndiaye nekk. ko bu baax waaye Leila Ndiaye. waaw nekk la présidente du mouvement jaspora en action. l'émergence aux côté de Amadou Ba mu nekk une femme engagée une femme déterminé femme bu am yërmande ci doomu aadama femme buy taxaw nit ñi loolu moo taxoon may jël kàddu à son nom di ko gërëm di ko sant di wax ni mouvement bi ñu taxawal tey dafa nekk Euh, bisu bi nga xamante ne si moom la ñuy lancé mouvement bi tey cérémonie de lancement la du mouvement politique bu ñuy wax diaspora en nation l' au côté côtés de Amadou Ba. <laughs> waaw. waaw damay ñëw si diaspora en nation. dafa nekk mouvement boo xamante ne si buñ ko sosee yàggul ñu ngi ko sos euh, le 19 septembre bii passé boobaa ak léegi daanaka jafagul sax ñetti weer mais ci diggante boobu am nañ ci adhésion yoo xamante ne si ëpp na 2000 membres ñii fi taxaw loolu mun nañ ko seere donc nekk na mouvement boo xamante ne si en si peu de temps mu def euh, record d'affluence record d'adhésion plus de mille membres loolu vraiment c'est à saluer wax dëgg yàlla projet politique bi nga xamante ne si mëne na ko nekk na un un projet politique porteur un projet bi nga xamante ni si am na avenir ndax man bi man bi ma waxtaanee ak Leila man xam naa ni nekk na ni koo xamante ni si nit ku am engagement nit ku am fula ni ku am fayda ci li muy def donc bi ma toogee dégg ko mu wax ma projet bi xam naa ni projet bi ni projet bu am avenir la donc may ñaan yàlla yéen ñi nga xamante ni si teew ngeen fi jógee fi sore sore donc délégation bi jógee Mboro délégation bi jógee Thiès délégation bi jógee Fadia su ma lumee damay jum ñoom ñëpp ñoom ñëpp dañoo takku nekk benn jàppale Leila ngir lan lii nga xamante ni si mébét na ko mooy projet politique bi nga xamante ni si am na ko yaakaar na ni kii nga xamante ni si moom lay jàppale mooy Amadou Ba yaakaar na ni loolu bu Amadou Ba taxawee yàlla mën na ko ci may ndam donc ñuy ñaan yàlla yàlla na yàlla jërëjëf yàlla na yàlla jàppale mouvement bi yàlla na yàlla motali yéene yi yàlla na yàlla jàppale ki nga xamante ni si mooy Amadou Ba ndax Amadou Ba aussi tamit nekk na doomu parcelle su fekkee ni ci candidat moom la coalition Benno Bokk Yaakaar tànn Amadou Ba nekk doomu parcelle ñun ñu nekk aussi doomu parcelle mais rafet na aussi kooku ñu jàppale ko ndax euh, en termes de compétence Amadou Ba il est compétent Amadou Ba il serein Amadou Ba visionnaire la projet bi nga xamante ni si euh, Macky Sall am na ko mooy l'émergence yaakaar nañ ni Amadou Ba mën na yóbbu projet boobu a un niveau difficilement atteignable yàlla na ko yàlla def donc euh, ñi war a jël kàddu bari nañ ñu war a jël kàddu bari nañ donc euh, te am na ñu jóge Mboro am na ñu jóge Thiès. te mi ngi commencé guddi donc damay yamale fii kàddu gi rek damay yemale damay yemale kàddu gi fii euh, di ñaan projet bi nga xamante ne si teg na ko teg nañ ko tey mu nekk journée de lancement di mouvement politique diaspora en nation l'émergence aux côtés de Amadou Ba yàlla jàppale ñu yàlla may ñu si ndam ci loolu maa ngi ciy maa ngi koy maa ngi ciy woo jeunesse unité 4 maa ngi leen di woo maa ngi woo jeunesse unité kat ñu jàppale ñu si projet bii ndax c'est un projet boo xamante ni c'est un projet porteur ndax tey fii nga xamante ni si taxaw nañ fi muy barab bii nii terrain Santos Amadou Ba yàgg na fi def teraanga yàgg Amadou Ba yàgg na fi teraanga ndax ay ça fait plus de dix ans ñu ngi organiser gàmmu gàmmu gi fii nii lañ koy organiser mais saa yu ñu koy organiser Amadou Ba mi ngi def teraanga loolu aussi tamit dafa jar aussi tamit ñu seereel ko mbooloo mi ñaanal ko yàlla loolu yàlla yàlla na ko yàlla na ko yàgg mën yàlla na sax ñoo ngi yemale kàddu gi fii di jox euh, xam naa kàddu gi soxna Abi comme ça après moom dina ñëw gën a yaatal daal mouvement bi daal na ngeen ko ni ngeen na ngeen xam ni mouvement diaspora en action l'émergence avec Amadou Ba la présidente lii nga xamante ne si soxal na ko mooy la jeunesse naam France la nekk mais mun naa ni soxlaam xalaataam lépp mooy suñu nekkini ndaw ndaw ñi ñu gën a am euh, nekk nekkin bu baax France la nekk mais nee na Sénégal doomu Sénégal moo ko tax a jug jafe-jafe yi nga xamante ni sénégalais yi ñu ngi koy dund loolu moo ko tax a jug loolu lay nekk di xeex ba su yàlla defee jàmm amul ba jël réew loolu mu mun ci saafara maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant vive Leila vive mouvement diaspora en action vive le Sénégal na ngeen ma baalaam jërëjëf xam ko ah nee nañu ne baax na solo wax baax na baax baax bu gën a ñëwee baax taw amoon ma nag moo ci gën loolu ñu wax moo ci gën kon waa parcelle nit a kàq jàpp ba vingt six ñëpp mobilisé wu jàpp ne Amadou Ba ànd ak Leila Ndiaye ak Touba Faye moo ko suñu xol sedd jërëjëf asalaamaaleykum mbokk yi asalaamaaleykum sama kilifa yi ginnaaw boo ma jullee ci Seydina Muhammad salallaahu alayhi wa salaam di wax jërëjëf Alaaji Fàllu Mbàkke sama sang bi maa ngi nuyu ñépp ki fi toog sama kilifa yi di ko commencé ci sama délégué ki ma def li ma doon tey di nuyu sama nijaay di nuyu membre bi fi toog yëpp di nuyu sama jigéen yu ñaawul yële nga xam te ne fu ma dem ñu topp ñu waaye leket gi waa bokk ànd liggéey du nuyu yaay Leyla Ndiaye du nuyu membre diaspora en action yëpp di leen ziar di wax nag tey buñ fi teewee tey ci lay Leyla Ndiaye xale bi ndeyam gërëm xale bi nga xam ne Sénégal rek ko ñoom Leyla Ndiaye mënoon naa nekk euh, diaspora nam fa lay liggéeyee waaye li mu yor dafa ne da koy indi Sénégal pour jàppale Amadou Ba le 25 février mu dugg palais wax leen wii jël nag seeni carte rek la ñu soxla Layla nee na seen carte leen soxla xale bi ci biir màkka yi xale bi ci hôpital yi xale bi ci yi kooku mooy Layla Ndiaye boo ko xamoon Layla Ndiaye mooy borom caaroy azur kooku mooy borom yaay juba Layla Ndiaye ngi ci ordonnance yi Layla Ndiaye bëggul kenn xiif bëggul kenn kooku mooy Layla Ndiaye ay Layla Ndiaye nag li mu bëgg mooy Amadou Ba dégg ko ñun dañoo bëgg Amadou Ba jàppale Layla jaay ndax bu jàppalee Layla Ndiaye Layla Ndiaye jàppale ñu ndax fii kat dara nekk fii ñun dafa jaa dara nekk fi wax dëgg yàlla dañoo bëgg bu boobaa bu ko jàppalee ñun jéegu fajaa ñu am xëy sunu doom yi nga xamante ne ñoo ngi dem ci mbëtt mi ñëpp am xëy ndax dëkk bi metti na ceeb bi mett seer na dund gi metti na xale yaa ngi dee ci géej gi ñun lool lañu bëgg mu jóge fi dañoo bëgg bu neexee yàlla 2024 bii le 25 février ci 6 heures ñu dem ji jiita Amadou Ba pale mu fajal ñu suñu mbébét yëpp nag ñun lool la ñuy bëgg incha allah mu jël nag Layla Ndiaye defal ñu ko ministre ndax bu ñu defalee Layla Ndiaye ministre ñun bu boobaa suñu yëpp day dee waaw wasalaam maa ngi ziar nag di jox ñëpp di jox nag kàddu gi nag suñu benn euh, responsable buñ naan Aysata Saw moom laa bëgg mu ñëw Thiès waaw waa maa ngi nuyu kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant di waxee ci kàddu Leila Ndiaye sama rakk jooju ñu bokkoon nekk caare azir tubarkalla yaayam baax baayam baax Layla damm yettu ngor sàmmee ko boppam saay-saay xamalu ko dara Layla bi muy def lu baax boobu Europe xewul Layla bi muy social bi muy jàppale doomu aadama yi boobu tubarkalla tukki xewul man nag ak Nafi sama rakk jooju bu dénk ñu caaroy azur jàmm gën si kap mbaaw la xale yëpp ne laylaa rek la ñuy topp ndax xale boo xam ne bi ngay def lu baax boobu politigo boo ootee tubarkàlla ñu jàppale la ndax néeg bu junni nekk nga def fa junni sa junni pertul waaye néeg bu junni nekkul nga def fa junni sa junni niil la sama rakk jooju baayam dafa def lu baax ci diggu réew mi deful dëli yaayam def lu baax ci digg réew mi deful dëli Leyla di jàppale fameem yërëm ndayam bëgg ay mbokkam waaye caaroy asir ga yaayam ak papaam dëkk xam nañ kan mooy Leyla Njaay man Leyla fu ma joxoñ ba topp ko maag ñi ma àndal xam ngeen ne commune u caaroy asir jàmm gën si kàmbaaw xajuñu fii waaye nag comme lu njëkk la ñu njëkk ko def commencé ko bisimilahi rahmaani rahim dañuy ñaan yàlla eggalee ko alhamdulilahi rabil alamin waaye dama bëgg ngeen xam ne yéen a ngi topp xale bu baax yéen a ngi topp Leila Ndiaye xale bu bari fulla yéen a ngi topp Leila xale bu bari jom xale bu gëm liggéey du ànd ak ku amul fulla du ànd ak ku amul fayda kon dama bëgg jeunesse bi yéen ñëpp ngeen ànd tubarkalla ñu jàppale Leila Ndiaye mu jàppale président mu dugg palais bu ko defee luy doy doy lii rek laa amoon lu may wax. jërëjëf may jéggalu bu baax a baax a baax a baax. macha allah. Kër Massar kontaan naa si maa ngi nuyu mbooloo mi yëpp du nuyu sama doom Leyla Ndiaye la présidente diaspora en action avec Amadou Ba dañ ne xale bu loxoom setee mën na ànd ak mag ñi. te Leyla Ndiaye am na fulla am na fayda responsable la aussi bi ma ñëwee mu tegal ma projet am si laa adhéré daf ma tegal projet am rek si laa adhéré nga xam ne kii ku mu àndal dinga nga di nga di nga di nga avancé man tamit ma wax ko ne ko Kër Massar gi ñu nekk dañu bare jafe-jafe mu ne ma yaay booy jàppale ma ñu liggéey soo ma jàppalee ñu liggéey ba ñu fal Amadou Ba bu sooba yàlla jafe-jafe Kër Massar dina jeex kon nag kooku jar naa àndal maa ngi nuyu responsable yi fi nekk yëpp di nuyu di nuyu euh, kilifa yi fi nekk yëpp macha allah wasalaam. jërëjëf leen tàccuwaat bu baax. tax ñëw te Leila fu mu jàpp rek danañu fa jàpp ndax suñu doom ju baax la Leila mu ngi liggéey di liggéeyal senes bi damaa gis liggéeyam. di jàppale jigéen ñi di jàppale xale yi te nun dañoo jooy ndax suñu doom yëpp dee nañ ci géej bi kon nag nañu jàppale Leila suñ ko jàppalee rek moom macha allah te ñoo ngi topp Leila Amadou Ba na ko gëstu mu xam ne Leila xale bu baax la xale bu mën a liggéey xale bu am jom xale bu set loxo te xale bu setee loxo rek mën a bokk ak ay bak kon nag nañu jàppale Leila Ndiaye nun ñoo ngi ci gannaaw Leila te Leila fu mu joxoñ moom la moom rek la ñu àndal tey moom la àndal suba kon nag Amadou Ba nañu gëstu gëstu suñu sedaf bi gëstu suñu jigéen yi suñu doom yëpp dee nañ ci géej gi kon nag jaajëf maa ngi leen di gërëm di leen sant. jërëjëf ñu ngi leen gërëm yooyu tamit di leen sant. maa leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu kilifa yi fi toog yéen ñëpp waaw di ne nag man maa ngi jógee ba Podor waaw nag ñoo mu yónni si Leyla Ndiaye. nee nañu mouvement bi yemul kese kese Dakar yegg si na ba Podor te ñoom ñoom ñëpp ñoo ngi si ginnaaw Leela Ndiaye ñu jàppale ko bëgg nañ ko jàppale nag mu jàppale suñu leader bi muy Amadou Ba ba jour élection yi ñu fal mu doon suñu président jafe-jafe yi nag bëre na yemul fii bëre na ci Sénégal bëre na ci Fuuta bi waaye ñun waa Fuuta lépp lu ñu mënti def dañuy jàppale Layla Ndiaye pour incha allah ñu fal suñu président Amadou Ba le 24 2020 kii 2024 ñun ñëpp jafe-jafe yi dina dañ moom mooy lom di solution en tout cas maa leen di gërëm di leen sant mënu ma ko si woon def mais ñu fi jaar ñëpp responsable yi fi jaar yëpp kilifa yi fi jaar yëpp wax nañu li ñu waroon wax lépp damay ñëw rek di feddalee di leen wax nii waa Podor ñoo ngi seen ginnaaw waa Podor ñoo ngi ci ginnaaw Leela ñoo ngi ci ginnaaw Amadou Ba te incha allah dina baax merci. asalaamaaleykum mbooloo mi ngi leen di nuyu ñëpp jàppee ko ci kaw ba ci suuf sans exception fàttewuma kenn dama ne ku ngeen àndal ku ngeen àndal ku ngeen àndal ku ngeen ku ngeen àndal asalaamaaleykum mbooloo mi loolu lancement la rek maa ngi leen di nuyu yëpp di leen sant yéen ñëpp di gërëm ñëpp kontaan nañu lool ndax lii lancement la rek film bi ñëwagul commencement la tubaab nag nee na tout début est difficile mënuñoo tëb rek mu neex tout début est difficile nañ leen góor góorgóorlu xàccandoo dóorandoo bu ko defee lépp dina baax ndax Sénégal man ki baax laa xamul. yéen waa Sénégal dama leen di laaj kenn moo fi baax ndax nee nañu Senghor ñu ne Senghor baaxul na wàcc ñu ne ma Abdou Diouf ñu ne Abdou Diouf baaxul na wàcc ñu ne Ablaye Wade ñu ne Ablaye Wade baaxul na wàcc léegi Macky Sall ñëw ñu ne baaxul na wàcc Macky Sall ñëw na jeexaat na ba jël na Amadou Ba Amadou Ba jël na jigéenam bi nga xam ne mooy Leyla Ndiaye mi nga xam ne gannaaw yàlla yonent bi moom lañ yaakaar mu teg ko fi kon boog Leyla Ndiaye ci boppam. ca kaw ca kanam amul lu muy tiit ndax guerrière la jàmbaar la ndax man fa ma jógee dafa sori mu ne ma maam damaa bëgg nga ñëw nga jàppale ma ma ne ko dinaa ci jàpp ndax li tax dinaa ci jàpp mooy góor nga jàmbaar nga jigéen nga macha sama làmmiñ liggéeykat nga koo gënul gënu la jàmbaar nga laa nga biir ndax dafa wax ak man keroog bay jooy mu ne ma man jeune su Sénégal dama leen a maam damaa yërëm jeune su Sénégal ma ne ko lan la dafa jar jooy bàyyi jooy te wax man mu ne ma damaa xam ne xale yi di dee ci géej ah, yu góor yi boo xëyee suba teel yaa ngi leen di gis ñu ngi daw kenn ci liggéeyul xëy ñu gontuñu defuñu dara dara dara dara dara danaa xal sama tànk tubéy France neex na waaye Sénégal bii moom ma ko gënal ma ñëw jàppale doomi Sénégal jàppale doomu réew kon boog man léegi laa mënu ma koo fenk ma ne ko lu ma mën a jàpp bu soobee yàlla dinaa ko bàyyi ñëw fekk si leen fii ci Ndakaaru kon boog Leyla na ko ñëpp xàccandoo dóorandoo ñaanal ko Leyla ca kaw ca kanam Amadou Ba nag na dégg li may wax buy jàpp na jàpp Leyla Ndiaye bu ko jàppee dana xam ne am na militante cent pour cent ndax la muy xalaat xam na ko am na xam-xam bi am na doole bi am na xol bi kon boog yal na ko yàlla jàppale may gërëm ñëpp di sant ñëpp assalamu aleykum wa rahmatullahi banda men onon fof on salminama nene mi ngi leen di nuyu mi ngi leen di ziyaar mi ngi leen di tatagal mi ngi leen di jox seen wàccuwaay goto fof inde mum yettode mum kenn ku nekk nuyu na la sa tur ak sa sant ko belamma tan ah, gonduɗen ɗo hannde nene tawi mbégte ak bànneex rek moo ñu fi dajale ono cukalel laaɓa juuɗe ñamdata koye sukaaɓe nena xale bi nga xamante ne loxom dafa set mu mën a bokk ci mag ndam mbiɗa salmina waa diaspora yépp nene mi ngi nuyu waa diaspora yépp mi haccani hay gooto bàyyiwul kenn. addimin donc sabu Leyla Ndiaye. Leyla sabab nag tey délégation solo bii mu yëkkati. E, minen e, yombol naaɓe arnooɗo mboolem ku dëkk yëmbal tey yaa ngi ci ginnaawam moom mii haala noon weeɓaani kono ko cukalel moƴƴel nee na wax nag yombul waaye xale bi daal set na baax na yarul woni première fois mi haala e radio e nee na tey la ma sa jël micro di jàkkaarloo ak ay caméra di wax ndax jëmm Leyla Ndiaye wallaay cukalel moƴƴel labɗo reedu

merci beaucoup merci beaucoup moom dégg ngeen ko moom loolu moom jaruma ko. ci biir urne yi daal di koy votel massivement te votel Layla Ndiaye mooy votel ki nga xamante ni mooy Amadou Ba su ko defee nag Sénégal daal di sëkk ay jéego yi euh, daal di dem daal ci li nga xamante ni moom mooy l'exécution totale de l'émergence comme ni ko son excellence le président de la république monsieur Macky Sall. tàmbalee woon kon nag mesdames et rendez-vous incha léegi nag ñu dajewaat daje yu mel ni yu gën a yaatu bu boobaa nag euh, ki nga xam ne mooy soxna Leila Ndiaye la championne la dame de cœur et de classe la forte personnalité ki gëm Sénégal bëgg ko gëm Parcelles Assainies mais surtout gëm la jeunesse bu ko defee mu fekkee mouvement bi fekkee meeting bi fekkee waxtaan wi ñu woo Amadou Ba mu ñëw présider ko bu ko defee ñu àndandoo liggéeyal Sénégal jërëjëf merci beaucoup. à la prochaine fois. damay fo sax muy neex ñëpp je merci na tudd yow yëngalal sa mbagg bu dee yaa ngi jot li 25 sur 5 li nga joxe ngay jotaat rek yàllaay tennis daf ma woo ma ñëw ma sampal ma I love you best je merci merci merci I love myself ci biti ñoo ngi wax man maa ngi ci biir ci biti ñoo ngi wax man maa ngi ci biir ci biti ñoo ngi wax man maa ngi ci biir yàlla du juum fen du am gi dañ ko fi tere ku la mere sa mbégte daf la soxore ba seen bañ du leen di taxale eh, ay gën leen pare